Dans nak ak ci revue de presse people ñu dooree ko nag ak site bii di Actunet di xamal rek ni waa tribunal nag de grande instance de Dakar dañoo condamné nag série bi nga xamante ne mooy Pod et Marichou gannaaw nag ba signé woon benn contrat ak waa Sen TV waaye nag ba première saison ba jeexee ñoom dañu dem signé waat beneen contrat boo xamante ne nii ak waa TFM ba tax gannaaw loolu waa tribunal nak fas yéene nak wax ñu fay li nga xamantene moy 20 millions de francs CFA wa Sen TV waa ndax bari wul sax ci kanam rek dinañ ci gën a xuusaat bu baax ñu jàll ci site bii di Seneweb diggante kii nag di mbay Diagne ak Soumboulou Bathily ñu ngi jiiñ kii nag di mbay Diagne footballeur international ni moom dafa trahir ki nga xam ne mooy Soumboulou dem takk benn italienne waaye moom daal lu mu xamle ci site bi rek mooy diggante moom ak Soumboulou la ca xew ñoom ñaar daal xam nañ ko te it bu doon ñun du ko woowee mu trahison li ci kanam daal rawali bët tey rek ci seen revue de presse people ñu ñëw ak site bii di MTV di ñu xamal nag ni kii di Cardi bii nekk benn rappeuse nag fële ca New York ay fans Nicki Minaj daal ñoo ko bind ne ko yow da ngay toppandoo ki nga xamante ne nii mooy Nicki Minaj gannaaw nag ba ñoom xaaruñu dara ngir yuuxoo ko ko te ñoom fans yi nag gannaaw ba ñu xamee nii diggante kii ak Cardi bi ak Nicki Minaj demeewul noonu ñu teg ci seen tànk ku am wéeruwaay daal doo daanu.

est concerne revue de presse people bu vendredi 29 décembre ma Dior, di mardi.